c'est compliqué. c'est pas compliqué est-ce qu'il n'a pas été renvoyé parce que texte am bi mu bind. jili xoolal ne texte bi il l'a publié sur LinkedIn. après jël lien wu LinkedIn bi. Mhm. andi ko euh, Facebook. Mm -hmm. LinkedIn c'est pourquoi d'habitude chercher un job. Mm -hmm. est-ce que le gars n'est pas là pour chercher un job. <laughs> en tout cas Macky Sall euh, ça me semble vraiment. Mhm. moom -hmm. perdu dans son propre jeu. alors euh, où est PDS aussi. qui, depuis le départ de Karim, aussi ressemble à une armée mexicaine. Non, depuis l'arrivée de Karim. Oui, euh, enfin, l'arrivée de Karim, c'est 2002. Oui. Euh, mais depuis que nous avons eu le parti. Oui, après nous <laughs> Non, non, non. recevoir euh, euh, l'intercoalition Takwal. <laughs> <laughs> Après nous Inch'Allah. Donc, donc, donc, je pense que ni, euh, ça se retrouve à une bipolarité. Alors, nous je pense que euh, ils étaient plus euh, les dindons de la farce électorale. sa Sàmm Sa Kàddu avec euh, voilà benn tête de liste buy saaga ay ndey. mais qui s'est rectifié quand même. oui oh. rectifié comment. jégalu il s'est excusé. Ah, oui non waxuma. non non non encore entendu pire. non non je ne parle pas de, fait qu'il euh, insulte mais de son manque d'argument est-ce que. tout au long de cette campagne seen tête de liste dégg ngeen ko mu ne lii lañ bëgg ci sur une nouvelle législation orientation des politiques publiques sur le plan législatif proposition de loi bii la ñu bëgg a def. est-ce que mës nga koo dégg ci biir campagne bi mu ne notre mécanisme de contrôle du gouvernement c'est ça la démarche d'évaluation des politiques publiques c'est ça jamais benn euh, li mu am ci jargon li mu am ci euh, lexique sur le plan politique. Mmh. du ñu ko nangu duñu ko fi def dañ lay chifaay mais c'est loolu loolu loolu loolu lu mooy campagne bi quand donc euh, faisant de Barthélémy Dias tête de liste ils sont devenus les dindons de la farce ils sont devenus ridicules et je comprends un événement majeur bu ñu war a ci campagne bi mooy le départ de Déthié Fall de cette même liste cinquième sur la liste mais quand même. mais ñoom xamoon na ni Déthié Fall day dem ah. non xamuñ ko woon ñoom dañuy wax xamoon nañu Déthié Fall day dem ah. waxuñ dëgg boo xamee ne day dem noo koy dugalee sa liste tamit di jëli bu bu bu bu bu buggaan dofee suñu nopp yi mën a wér quand xam nga ne kii day dem nga dugal ko sa liste teg ko cinquième position waxi dofee mooy la alors toujours les dindons de la farce mais jàpp naa ne am une tête de liste aussi euh, vide dans la tête man bu ma ko amoon damay bàyyi wax dëgg yàlla ça n'honore pas euh, Déthié Fall d'être derrière Barthélémy Dias quand même ça ne l'honore pa à tout point de vue un acteur politique boo xamante ne mosoo koo dégg mu ne la sama proposition ci agriculture bi lii la ci euh, élevage bi lii la ci économie bi lii la finance publique la dette dara dara dara ci débat bu sérieux mosoo ko dégg Barthélémy Dias c'est normal qu'est-ce qu'il a comme background lu mu jàng lan mooy euh, son expertise rien du tout te flingue booy dakaar laa tëbaka dal bay loolu taxul ñu jox la réew et bizarrement ci biir élection bi nii il a déclaré sa candidature à l' élection présidentielle xaw ma ndax nit ñi bàyyi nañ ko xel ah, wax na ko kay c'est lui il a déclaré en pleine <laughs> élection législative il déclare une candidature à l' élection présidentielle demal dégluwaat discours Saint-Louis bi il a déclaré qu'il est candidat à l'élection présidentielle donc ça veut dire qu'il n'est pas sérieux il ne prend même pas ces élections là au sérieux alors que je pense que ni tournant bu décisif la ci euh, dundu Sénégal. d'accord et le discours de de Ousmane Sonko euh, ci président ministre de la de l'intérieur ministre de la justice. non non loolu aussi. Euh, ñu bëri ci wax ah. dañuy na jàpp ni c'est un candidat rek bu candidat boo xam ni il premier ministre qui a dit que l'État a failli à sa à sa loolu wax naa ci li ma ciy wax ba pare du ma ci delluwaat trop mais il était de liste aussi. il est chef d'une formation mais, politique. Mais, mais est-ce qu'il est euh, est facile ñuy différencier le PM et le candidat. oui loolu aussi gars yi ñu parce que am na yenn yoo xam day taxaw ni dossier bi c'est classé secret défense en tant que taxaw fii ne lii dama ko wax en tant que candidat loolu aussi am na amalgame bu ci am. bon euh, xam nga euh, personnalité morale. Mm-hmm. mën na différer la personne physique reste la même mais en tout cas fi mu doon euh, waxee. Mm-hmm. que dafa am violence à Saint-Louis. tout le monde l'a vu. Mhm. avec des images vraiment insupportables nest pas donc euh, ci campagne la nekk. Mhm. ay ñooñam la loolu dal mu wax mën nga apprécier. positivement ou négativement moo tax ma ne bugguma euh, glisser ci foofu noonu qui ressemblerait euh, à autre chose. Ah, mais dañu gis nga dugg ci euh, Barthélemy Dias dugg ci loolu mais aussi. non Ousmane Sonko itam candidat ci loolu aussi il ne devait pas répondre à la violence. ah c'est c'est ton ah appréciation yaa ko wax. assumé parce que parce que Ousmane Sonko. Hmm. il a violenté qui. le discours. le discours était violent. Ah wootewaat gatsa gatsa. ah oui bon doucement ah. doucement doucement doucement. Euh, il a été victime de violence. Sa formation politique était victime de violence. Les images sont là pour en attester. Alors, Abdou comment la victime, la formation politique victime nga bëgg a taxaw ne moom mooy coupable bi. naka jusqu'à menacer kan nga gis Ousmane So euh, enfin doucement fan nga gis Pastef yëkkati loxoom. teg la faillite de l'État. bul moo tax ma ne la bul dugg foofu dama ne fan nga gis. Mhm. Pastef yëkkati loxoom teg ko ci kaw kenn Pastef mooy drainer foule. gis nañ ci ba Ababass ah. mu ne armez-vous. qui a défié l'autorité. waaw ouais, et que j'ai dénoncé ah ko ci yor ku bokk ci euh, cortège Pastef yor pistolet ak jaasi loolu aussi nañ koy. souligner quand même non dafa nag dafa nag dafa nag dañ leen attaqué leer na ci bopp Sénégalais yëpp gis nga ko. gis nañ ko gis nga ko. maanaam ku ma attaqué ma yor jaasi saay ku ma attaqué wut lu ma la attaqué non dafa nank rek dafa nank rek. diine daf ko nangu loi nangu ko de la légitime défense de la légitime défense réglementée par le code pénal. d'accord mais kii wane jaas ak pistolet waruñu ko woo. non defal nank rek defal nank rek Koungheul xam nga ki ñu attaqué ak ki attaqué xam nga ko. Ah, loolu man moom mënu ko vérifier parce man mën naa ko vérifier nag c'est Pastef a été attaqué mais ñi ñoom ñoo leen attaqué. ñii la oh. ñi ñoo leen attaqué c'est difficile de le. man euh, moom mënu ma ko mënu ma ko vérifier le président Malick Gakou est là. Euh, preuve bu leer que ni ñoom lañ attaqué alors euh, à Saint-Louis. c' est le Pastef qui a été attaqué. à Diourbel ak Koungheul mais partout c' est le Pastef qui a été attaqué après ñu ne moom moo yor discours bu violent alors donc euh, ñi ñi ñi ñi yor acte bu violent bi na violence moom dañ koy condamner. ci lu mën ak fu mënti jógee sur toutes ses formes jàpp ne ki riposte à la violence. kooku violence mais d' mais le fait que mu dikkaat ni euh, c'est l' à sa mission aussi loolu aussi moom moo nekk le premier ministre. Mm-hmm. moo tànn le de l' intérieur aussi loolu mm-hmm. dem di ses propos ont été jugés vraiment. Euh, ku nekk mën na juger lu ko neex. na ku ne jugé lu ko neex mais man je suis mm-hmm. responsable de ce que je dis je je dis ki nga xamante ne mooy victime nga gis ko par des faits par des preuves claires mm-hmm. et par des vidéos qui l'attestent mm-hmm. mais kooku doonu riposte nga ne non non non riposte bi moo violent mais euh, l' attaque n' est pas violente. non l' attaque est violente. point final point final le premier ministre ci discours bi mu am keroog mais loolu aussi nañu nañu nangu ne wër woon nekk. discours am wax ko. bu la neexee jox na bàyyi naa la sa liberté nga apprécier nu mu la neexee. le discours de <laughs> Ousmane kon man comme que nangu woo ci wax. mais man parce que dama gisaan nga wax ci ah, ko la Barthélémy ah. Dias boo ma nee lii euh, euh, bind na livre wax na ci nangam xam nga man li ma lay wax ni ce sont des faits. ma euh, mm. et gaz chronique de spoliation bind na livre solution. joxe na projet de société. en 2019 jot na li ñëpp bokk ñëpp jot si. nekk expert fiscal. nekk inspecteur des impôts de domaines. wax ma Barthélémy Dias ban production intellectuelle la def wala ban lan la Moussa wax. man la koy laaj. comme li nga boo ko mënul rek. non non non je te donne des léegi yow nee ma. Mm-hmm. Bart il est nangam. bind na ci nangam ah? il est le maire de <laughs> <laughs> tu es sérieux tu es sérieux Abdou Khadre quand même il est maire moom mooy loolu loolu mooy métier maire décidément décidément. merci papa ah ana waa taxaw génn leen booy. nee moo jàngal soo ngoon nu muy téye pistolet. xoolal boobu du na ma Sénégal dimbali. wax ma Barthélémy Dias lan la à part mu ne moo jàngal Sonko tiré mais da ngay xool ci seen liste ban profession parce que non mais maire de Dakar du métier non non mais defal naa erreur bi ñu nekk de liste luñ ko bindal luñ ko bindal liste bi ban profession da nga dem nga xool liste bi mais amul profession lañ bind ci profession mais vous êtes obligé vous en tant que journaliste d'aller à la liste pour xool pour ngeen xam ne ki xamul man maa ngi ci Macky Sall maa ngi ci Wade tey jii nii boo tey jii nii boo ne non il faut il faut ñu dem ci il faut ñu dem ci da am benn laaj boo fi laaj euh, daf ma lu mu si bëggoon indi benn réponse rek. ayca ayca euh, dañuy jaawale la personne. Mm-hmm. Mm-hmm. ak le personnage. Mm-hmm. parce que tey fii nga toog. tu es un journaliste. waa TikTok bi ne la gisatuñ la. Euh, fi nga toog ni Abdou Khadre. tu journaliste présentateur. mais xam nga seet bu bees nga boo demee fële ci kër gi ci wetu madame <laughs> dootoo tu seras le mari de ta femme. lépp. tu seras de ta femme. non foofu lay dem naan journaliste la. donc <laughs> ici. kenn mënul xaajale am. na discours yoo xam ne bu ko teniree bi mu ko teniree keroog dama tiit mais dama bëgg suy analyser. Mm-hmm. nga jël lépp de manière globale. Mhm. ak aussi de manière contextuelle. Mhm. ça n'a pas commencé aujourd'hui mhm. dès le parce que parfois benn mbir bu ndaw ngay xeeb te mën na jur fitna. sama grand bi nga jàppee yóbbu ko fële ca Tamba Bougane ah ñi nga xam ne dañu bokk ak moom kuréel. ci wàllu politique. dañuy dem soutenir ko politiquement. ils ont politisé l'affaire oui ou non. oui. kon ñoom bu ñu demee ne dañ ci am taxawaayu politique Bart nekk maire Dakar jóge ba Dakar dem Tamba. Mhm. Pape Djibril Fall dem Tamba. Thierno Bocoum dem Tamba. am mhm. Tamba du dëgg. Mhm. am nañu liberté am nañ droit soutenir seen farandoo ci politique. kon bu ñu bañ bu ñu indee mbir mi sur le terrain politique. am tamit ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw ni ñoom it. sur le plan politique dañuy soutenir kañ faral mhm. mais bi fa kàddu jógee sonko sonko kan moo saaga. Barthélémy Dias kon moom moo ko njëkk